Euh, remercier vraiment di ko jaajëfal di xaar keneen ci 77 810 90 90 di leen ñaax aussi di leen ñaan ngeen di liker vidéo bi maanaam képp koo xam ne yaa ngi soog a teewlu waxtaan wi euh, ñu ngi la ñaan nga liker vidéo bi di jéggalu aussi ñëpp ñi nga xamante ne amoon nañ ñu waa euh, seetaan bu midi jotee heure Sénégal may fàttali naa leen sànq ne jongante football bay am jamono ji ci Indonésie di coupe des coupe du monde ba nga xam moo fay amee Sénégal doon ca football ak France moo taxoon xaw a décalé heure bi waaleykum salaam wa rahmatulah. mbokk mi na ngeen def. Zolam ñu ngi foo ñu woowee. Kër Masar. naka waa KM. wàcc daaw Kër Masar. Mm, yéen dafa mel ni waa Kër Masar yéen song ngeen parrainage bi de. waa ñun kay fi mu toll nii. Zolam mooy mooy loolu fii dañ ko yàkkamti woon. léegi yéen lan ngeen jàpp ne lan ngeen jàpp ne moom moo tax euh, ba nga xamante ne euh, noonu la waa euh, Pastef daal di xamle ne ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye daanaka mooy nekk seen porte étendard maanaam mooy yore parrainage gi jëmee ci seen i tour ci élection yi ñu yenn sénégalais daanaka ña ci bari sax tàmbalee yëngatu parrainage bi gën a yënguwaat lan nga lan nga lan nga jàpp ne moo waral li ni waaw li waral li mel xam nga euh, dafa am loo xamante ni sénégalais yi dañ ko rêvé woon mhm. ñu dem ba ci biir euh, am ñoo xamante ni dañoo bëgg a yàq xelu sénégalais yi mhm. ci ay diversion ci ay Ousmane Sonko day dem Sonko day dem fee Diomaye Faye day fii Diomaye Faye day dem mhm. te ñu nekk ci Sénégal goo xamante ni tey ñun amuñu benn espoir pour Ousmane Sonko tey Ousmane Sonko moo nekk suñu biir moo nekk suñu biti tey boo gisee Sénégalais yi tey taxaw ngir ne ngir fay taxaw ngir ne tout la journée ñu taxaw di rang ngir mën pare parrainer Ousmane Sonko parce que am na lu tax hmm. parce que Ousmane Ousmane espoir la boo xamante ni ñun dan jàpp ni Sénégal tey bu jubbanti ko jub Ousmane Sonko moo moo moo ko mën a jubbanti moo ko mën a jubal hmm. ba ba tax na ñu porté suñu espoir ci Ousmane Sonko hmm. li nga xamante ne nag mooy euh, euh, Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. ak li nga xamante ni moom moo nekk suñu kanam parce que euh, ñun waxuñu plan B de ñun dañoo jàpp ni benn plan la am muy plan A muy Ousmane Sonko mm-hmm. ñun amuñu plan B amuñu plan C amuñu plan Z mm-hmm. lii deuxième phase la kanam lu nekk mën a ñëw gis nga régime bii fi nekk nii ba yeboo ñu préparer lépp xam ne ñun amul lu ñu préparé amul lu ñu waajul fu nekk lan mën a génn pour ñoom mhm. te élection yi pour ñoom ñu ñu jàpp ne ñun mënuñu ci dem ñoom dañuy taaral seen bopp mhm. parce que maa ngi dégg benn député taxaw ci euh, assemblée di wax ay affaire salafi sax ay yu xamul ma dégg benn ministre boo xamante ni damaa jàpp ni moo yoroon lii moo yoroon jë jëm si wàllu ñebbe jeg yooyu parce que moo fi jaay jaay kilo ñebbe lu kenn mës a jaay <laughs> toog ci plateau di wax ay waxu picc yoo xamante ne kenn xamul lu mu doon <laughs> mais ñoom dañu war a xam ne réew mi dafa tollootul foofu parce que sénégalais dañ yeewu parce que moo doon jaxase sénégalais ak sëriñ si parce que affaire diine dañ ko dafa am côté bu mu nekk mhm. affaire politique am côté bu mu nekk mhm. te fi mu toll nii ñun buñ ñu ak politique bi nag bëgg ñoom ñu ni te ñoom ñoom ñu koy wax la plupart gëmuñu sax sëriñ si mm-hmm. ñoom ñu si ëpp gëmuñu sëriñ si xam nga lu ñu gëm seeni intérêt bopp ak seeni intérêt njaboot mm-hmm. mais réew mi ak sëriñ si ñoom intérêt ñoru leen mm-hmm. loolu la maay waaye mën a wax daal mooy fi mu toll nii ñun taluñu leen sax xam nga lu ñu tal parrainage la tal li nga xamante ni mooy parrainage ñu jéem am trois mille parrain trois millions de parrainage Ah. pour jox ko Bassirou Diomaye fay pour mu war a mën a dem ci élection yi léegi nag yeneen alternative yi nga xamante ni ñu ngi koy préparé loolu moom beneen affaire la loolu moom duñ ko wax ci télé duñ ko wax ci rajo duñ ko wax fenn dañuy waaj li ñuy waaj ta jëmmal li ñuy jëmmal taxawal li ñuy taxawal ngir Sénégal mën a jëm kanam parce que ñun ñëpp xeexuñ ñu suñu suñu intérêt bopp utuñu ay poste utuñu dara hmm. dañuy xeex ngir réew mi baax ngir réew mi man a jubbanti ko Mhm. maa ngi lay ziar bu baax Jaram di ziar Saa Touba di ziar sama góor googu nekk ci Louga di ziar Ahmed Basir di ziar euh, gars yëpp maa ngi baax di la ziar yow moom tu as fait le tour vraiment merci yaa ngi bëggee ah, ñoom itam xam naa euh, ñoo ngi ñuy seetaan euh, suñu amee itam sans dugg ci ligne bi rek xëy na danañ ci àddu di la jaajëfal bu baax a baax ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan maa ngi ko doon wax sànq ah, xaw a aussi ci ndax xam ngeen ne daanu doon am heure bi waaye rek la nga xamante ne moo doon amee di coupe du monde U17 yi Sénégal doon ci football moo taxoon ñu wadaat yi wàccee wàccee heure bi voilà di jaajëfal aussi ñëpp ñi nga xamante tamit ñoo ngi seetaan jare jaaree ko ci chat en direct euh, direct bi ah euh, Cheikh Oumar. allo. oui. asalaamaaleykum. aleykum salaam. ñu ngi leen di delloo ziar. ña ñàkk naa tooy lépp de. ah mbaa du daa metti. <laughs> ah Régis yaa ngi gis de xam nga xam nga xam nga des su ma waxee gis nga su ma waxee samay loxo mu ngi nii su ma waxee ne du man may décroché gars yi des fois dañ may mere maanaam ligne bi nu mu tëddee moo tax affaire yi day métti appel yi day dugalante donc des fois c'est un peu difficile mais gars yi duñ ne moom mooy moom mooy moom mooy nekk ci instant bi moom a jël donc ñoo ngi jégalu ci aussi ci ñi nga xamante ne des fois dugg bi day day day métti moo tax it dañ koy wax chaque fois rek koo xamante ne soo mënee bàyyi message nga bàyyi message message des suñ ko mën a jàllale ci waxtaan wi aussi ñu jàllale ko donc régi su amee keneen nga jox ma ko 77 810 90 90 xam naa góor googu di ca Louga liñ bi daa dagg ci moom di ko jégalu baax aleykum waa lay jaar waa Mbour jaram a baax naka waa Touba dégg naa ne ñoom ci wàllum pare nag dafa mel ni jël nañ la gum nañ ca la gum nañ ca pee wala pourtant pourtant dañuy génne vidéo Touba yi rek balaa boo duggoon boo duggoon Mbour gii ah, da ngay da ngay yomb sax da nga naan sax lii lu nekk maanaam daal lii miracle la daal. man moom du ma arbitre du ma arbitre du ma juge. waaw waaye waa Bennoo dañ may envoyé seen parrainage. waa mm. euh, Déthié Fall dañ may seen parrainage. daanaka. Mm. ñi nga xamante ne ñoom laa tàmm di waxtaanal ci émission yi may def yëpp ku ci nekk da yaa ngi envoyé sa sa sa sa xëy na pour wax naan maa am naa lii ma am naa lii waaye waa Pastef ba léegi yéen moom waa Touba kese laa jotagum seen bos. donc est-ce que du jëlagum raw gàddu gi tamit waaw waaw waaye dama lay wax ne muur gi buñ paree. Hmm. damay ragal sax ñu rob waa Touba. <laughs> waaw ñu ngi naan ñu ngi naan waa Touba waa Touba waaye baa ko mbuur pare rek. Uh-huh. mu mbuur pare rek damay xam ne. Mm-hmm. ñun pare nañ pour minute indi suñu pare naa soo xam ne nii war na Sénégal lépp luy defar Sénégal rek mbuur dana ci ko dana ci bokk. d'accord d'accord merci. acca bismillah léegi li ma bëgg wax. Mm-hmm. mooy Sénégal yi lay dégg. Mm-hmm. moment bi ñu toll nii moment du moment boo xam ne nii li may wax mooy trois mois yi des mhm. ñun fii ak Macky Sall jógee fi rek mbégte du nekk suñu xol mhm. dañu maslaa ñi rek ndax booy xeexee ko xam ne nii du nit mhm. di saaga Sénégalais kooku da ngay bàyyi lu bare bare moment yi du moment yi mbégte du moment da nañ def li ñu def ànd ak fulla ak fayda ndax waa ji fulla ak fayda rek moo koy jël ci mhm. ndax lii mu gis nii xam na ne lam doon waajal di ko xalaat lépp xam na ne lam doon def lépp ci ay nax lañ ko tegoon ña ko doon jay mhm. naa ko Ousmane Sonko xale yi bàyyi nañ ko Sénégal yi toppatuñ ko ñu ngi nii tey ba mu bu wootee vraiment tey ñaata ay junni junni Sénégalais boo xoolee vidéo yi ñu ngi rang di di mhm. moom xam nañ ne ñi mu àndal dañ koy nax la du comprendre mais ñoom mais mi ngi tàmbale comprendre mais mais ci xayma yi nga xamante ne ah, ñoom jox nañ ma ko xam nga man ci ay xayma rek laa mën a sukkandiku mais ñoom la ñu am ci euh, ci parrainage jamono ji aussi ma macha allah bari na de bari na lool Touba rek un million yu teg na ah mbuur la Touba rek dégg naa un million yu teg na mbuur moom damay damay ñëw rek ñoom boo métti deux millions la ñu def <laughs> waaw baax na waaw xam nga Touba ñu ngi ne un million waaye damaa ragal ne mbuur moom day ñëw def deux millions hmm. waaye dañoo toll fi may waxee mooy dañoo tollagu ci jamono ki ñu jàkkaar lool mhm. mooy ku bañ Sénégal ah, ku bañ askan Sénégal dafa ndànk ku bañ ay ay ay ay ndawi sénégalais da Macky Sall xam nga ne bi mu toogee ci nguur gi ba léegi lan la jàppee si ndawi Sénégal mhm. question boobu moo koy posé xam nga lan lañ leen jàpp mhm. ñii tëj na leen ñu ci ray war a ndaw rey na leen ñu ci war a faagagal faagal lañ joxu ci même même ndaw xëy ndaw yëpp ñu ngi si biir boo demee ci làmb yi ñu leen di naxee presque li ñu def amuñu jot amuñu demuñu fenn. Mhm. quatre-vingt-dix-neuf pour Sénégal yëpp dañuy taxawal kenn mënu ci amul fay te ba mu toogee ba léegi. Mhm. lu ko gën a metti mooy ndaw lu mu gis dana fexe ba faagaagal la indi laay jafe mhm. te ñoo xam ñoo ëllëg réew ñoo war a matir nag am fulla ak